Thank you. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan seen émission naar góor ci seen télé bu mag bi nga xamante ni moom la wax le miroir du Sénégal seet askan wi mardi bu jot midi 30 ci seen télé bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax le miroir du Sénégal tey seen mbokk seen xarit Madiop Mbaye Pekh di leen ko amalal fii ci Kër gi la maison fii ci TFM ma dalal si nag sama père mu nekk suñu père euh, nekk ci course bi waaye nekk kenn koo xam si ku ràññeeku la ci course bi torkala muy suñu père Madiop Fall chargé président. communication bi nga xamante ni mu nekk seen CNG course hippique moo tax tey ma dalal ko mu fa yéene leeral ci li nga xamante ni moo am muy que course bi nga xamante ni fan yi xaw nañ ko téye ci ay xëccu ay kàddu ñii ni li dañu bañ a dawal Idrissa Seck moo tax ñu téye ko ñii ni ministre des sports moo joxe ndigal waaye ki nga xamante ni ñu bàyyi tamit wax ni président CNG ak couche couche hippique yëpp ñoom ñoo taxaw jël dogal téye ko ba élection yi jàll loolu nag Père Madiop Fall nañ ci leeral ci suñu biir émission Naaru Góor Père Madiop ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay euh, ngi lay gërëm si invitation bi parce que leeral dafa baax ci lu mu ti doon euh, coow li c'est commencé woon na di wax di di bari mais mbir mi ni mu demee rek dafa simple mm. comité national de gestion des courses yàlla dafa def muy kuréel boo xam ne. état moo ko fi teg jox koy responsabilité responsabilité yi ma ko jox nag dafa maanaam jël si cëram dénk ko ko donc ñun daanaka état lañu ñu donc état euh, war na mën ji responsabilité am mooy ñun dans cette affaire dañ jël suñu responsabilité wax naa tout à l'heure ne euh, xam nga su saison ubbee dañuy def benn calendrier de compétition ki nga xam ne nag mooy Oumar Diaw la euh, le directeur de courses moom la ñu jagleel cër boobu mu réfléchir si su paree di indi ko comité comité euh, réfléchir si moom itam d' accord si valider li nga xam ne mooy euh, document bi nga xam ne mooy yor affaire affaire course yi donc loolu daañu am dans dans l'année à peu près vingt cinq ba trente courses CNG jël si par exemple ne jël naa quinze yi jox naa chaque région temps cinq régions ku ne jox la sa deux ou trois mi ngi bëgg a bëri. département yi également ku dañ jox la sa journée sa benn parce que amuñu doole nee na nag dem leen na uti nag ay moyens ñun daañu leen jàppale ndam mais ut leen seeni i moyens yi mooy le parrain euh, pour ce cas bi nga xam ne moo ñu intéressé muy kaaw ces le président de Thiès dem gis le président du conseil départemental kooku dem d'accord ak ñoom ba ñu dañuy dawal euh, telle date date boobu je pense que moo doon le 13 ah bi nga xamee ne def jël nañ ñoom tam loolu. muy lu rafet wax dëgg yàlla parce que euh, le président du conseil départemental bi mu nekkee maire Thiès te jii hippodrome bi ginnaaw yàlla moo ko fa teg dans les chantiers de Thiès liggéey fi liggéey bu rafet ba tax na tey jii suñu amee hippodrome bu ñu mën a euh, considérer comme le mais de nos hippodromes je pense que hippodrome Thiès la kon nag ki defar loolu doo ko yàqal daraam au contraire da nga koy gën a jàppale bii loolu amee nag ñun dañoo baaxoo chaque fois que ñu nekk ci période élection dañuy moytu dañuy moytu cow dañuy moytu parce que course dafa sensible mhm. te lu ko lu ko yàq dafa gaaw mhm. ñu ne ah attention depuis vingt ans man maa ngi si ëpp na vingt ans sax ñu ne su euh, kii kii amee euh, euh, élection campagne électorale jub nañu arrêté toute activité ba loolu jeex mhm. su loolu jeexee nag ñu dellusiwaat nag ci li nga xam moo doon suñuy activité kii waroon dawal par exemple le le treize ou le douze le treize je sais pas le treize mu dawal le douze joxu ko ko daañu ko jox beneen date boo xam ne moo mooy gën sax certainement date ba nga xam ne moom la bëggoon comme ñun bëgguñu ay bëgguñ jàmm dong lañ bëgg ñu nañ ko tëralee noonu depuis vingt ans ñu di ko def mu mu ñu jubal mu ñu jural jàmm rek jàmm dafa neex dafa baax. damay yëgal ni ñu ne leen euh, le ministre des sports mi xam ne moom moo ñu jox cër boobu muy cëru état ñu koy yore di ko doxal amuñu dara loo xam ne. ñu ngi si ragal dara ñu ngi koy doxal nañ ko war a doxole parce que état moo jox état la ñu ministre yoonam nekku si keneen ku dul ministre yoonam nekku si ñun la ba keroog ñuy nangu cër bi ñu jox nangu nanguñ ko nag ñun ñoo ko yor kon nag ñoo koy doxal nañ yaakaar ne suñ ko doxalee dina defar dina rafet te du yàq suñu kursu dara loolu moo am li mooy li am monsieur le président de Thiès su li jeexee su dikkaatee jaar fa mu war a jaar maanaam ci président bu Thiès kooku ñu gis ñu daañu ko jox bés su boobaa dina dawal bés bu rafet rafet ñu jàppale ko ci bu baax a baax a baax. kon daal mën nañu wax ni course bi li ko téye ci CNG course bi la jógee mais jógewul ci keneen. muy muy lu rafet ci ñi ñi la jóge ñoo jël sunu responsabilité ne duñ ko accordé te ku ma aussi duñ la ko accordé parce que principe la boo xam dañ koy donc dañu bëgg nit ñi xam loolu mu leer seen bopp bu baax a baax a baax bañ ko defee tëb ñu tëb sànni wax ci mbedd mi dañuy def communiqué de presse envoyé ko ci rajo yëpp télé yëpp fii la ñu commencé. la ñu commencé envoyé ko dans toutes les rajo de la place ko ba Thiès pour nit ñi ko pour ñu xam ne loolu rek la du leneen buñ ko dëkkal fenn buñ ko yóbbu fenn fii dong la. dénk nañu jël nañ suñu responsabilité jël nañ li nga xam ne mooy mesure bi ñu yaakaar ne mooy bi baax bi defar jël nañ ko te wax dëgg yàlla rëccuwuñ ci dara aussi. mais père am na ñu bari ñu ni dañoo bañ a dañoo bañ. Idriss dañu dañ ñëw dégg nii Idriss Seck dafa def dañuy day def foofu benn tournée doog a ñëw ci hippodrome bi nag lancé fa wàllu appel yéen ngeen dégg ko doog a téye bi est-ce que est-ce que du tamit loolu. loolu amul nit ñi dañuy wax rek. Mhm. xam nga euh, politique politique la. Mhm. te politique ñii dañuy far fii ñii far fee mhm. ñii far ñi lii la ñuy wax. ke far fee lii lii lay wax mais loolu yëpp dara amu ci. ñun daal taxawaay état lañ taxaw. man mii di sama wàll bopp man. ak Cheikh Niang bi xam. ak directeur des courses ak maître Souleymane Dia avocat ba ñu toogee di waxtaan gis ñu dara lul rek li nga xam ne moom la administration tëral ñu teg ko ci yoon doxalee ko noonu te wax dëgg yàlla luy defar la luy yàq dañ koy éviter duñ ko nangul kenn loo xam ne lu ñu yàqal la kooku ma vraiment rëccu ci dara tam nag dara dara. looy tàggoo Père Madior. waaw li may tàggoo rek mooy bëgg naa nag dellusiwaat parce que sa télé neex na ma lool. Euh, gis naa la ni ngay góorgóorloo. mais Père Madior euh, que dinaa la laajat beneen affaire tamit fan ngeen toll ci journée yi nga xamante ni moom la jublu parce que dégg naa ñu naan à partir de le 20 ñu ngi dawal Tivaouane. waaw à partir du 20 Tivaouane jëloon na journée am ba mu jëloon dañ ko mujj reculer léegi ñu ne nañ ko jox beneen journée à partir du 20. Tivaouane kay moom su bëggee date nan dama bëgg tel date ñuy xool ndax ma dëppoo na ak sunu calendrier ñu jox ko. je reviens encore Thiès su bëggaatee également date comité est disposé a lui donner une autre date boo xam ne dina si dawal loolu daal laa la mën a wax ci li nga xam ne mooy li concerné affaire les journées de course. xaw ma nag ndax da nga am leneen lu ma la loo. à partir de vingt fan la ñu war a dawal kon. à partir de vingt foog ñu toog waxtaanaat nag. xam nga comité yi mënul tëb tëb rek jël décision man tam mënu ma ko wax mhm. il faut que ñu dem réunion mhm. président toog comité directeur ñu ñëpp toog ñu def proposition ñu wax ba d' accord ci ko parce que tant que validation amul rek mhm. dara dara taxawagul incha allah jërëjëf voilà kon mbokk yi xam naa dama leen ni bàyyi ngeen ñu dem Thiès hippodrome Ndiaw Macodou Diop moo leen fa ay yu neex ñu doog a ñëwaat fii seen biir plateau ma doog a tàggoo ngeen mbokk yi. gis nga maître a ngi noonu di génn. dëgg la xam nga maître tey moo ànd ak grève nekk doomi ndeyam waaye Dieng bi boo ko xoolee sa xel ci Arif rek lay. Arif la jëm mais Arif rek ci lu mu xarit. non c'est du rakam lii lii lii nuroo moom. Arif. The man shop happy. nañu Mara Mara gaa yaa jug na gaa yi jug nañu mètre génn na mètre lii la baaxoo Mara. waaw mètre moo génn. mètre génn na ki ñëw bidiw njàmbur moo ñëw topp na ko. yàgg nañ lii bidiw njàmbur moo noonu. waaye ki nga xamante ni mooy Mandel wala ki nga xamante ni mooy Alice ñoo nga nele ñoom jaari ca kaw. am na ko kasaaga mat de. te triple arras ba lañ. dëgg la jaay jaay te triple arras ba. ki nga xamante ni mooy mètre moo génn Mandel ñëw Mandel ñëw na. Mandel moo ñëw deuxième position lonku maître mu nekk rawante bu métti ci diggante ñoom ñaar diggante maître ak Mandel yéen gars yi ci nañu benn dank ci ginnaaw Mara. waaw maître moo génn waaye distance bi soriwul maître nag tey. dafa kasaar yaa ngi Mandel Mandel Mandel ñëw na. Mandel ñëw na ngoobu Mandel ñëw na Mandel ñëw na dina Ndiaye. ak fas woowu nga xamante ni ca dëgg-dëgg ma jóob mooy biddiwu njàmbur ñoo ànd ñoom it toog si deuxième ñoom ñaar. ndeysaan man daal moo nekk noonu ci kanam waaye maître moo nekk deuxième position gars yi ñu nañu benn groupe ci kanam wan nañu ginnaaw ñu ngi noonu di dellu ñu ngi noonu di dellu ñu ngi noonu di dellu ñu ngi noonu di dellu Mandel maître Mandel maître Mandel ñoom ñaar ñoo nekk ci kanam seen naa capitaine dina bu deewu ñaambur tamit ñu ngi ci biir. mu nekk rawante bu métti gars yi def nañu benn xam nga nag dernier virage moo leen dese. Mara moo ñëw fee. gars yaa ngi dawal Mara. jot na dugub ak aliment akum ngooñ fi ñu toll nii nag ñoo capitaine dina capitaine dina ak maître ak bidiwu njàmbur ñoom ñëpp fi ñu toll nii. dañoo am bidiwu njàmbur bidiwu njàmbur maître yokku na distance bi. yokku na ay waay maître bi moo mën a da waay ay maître mën a da bi. ari nga xamante ni tamit mooy trêve moo nga nele moom toogi quatrième position lu gars yi waxi musul waaye dawal nañ ci nga xamante ni mooy capitaine Dina Ndiaye. capitaine Dina Ndiaye dem na capitaine Dina Ndiaye dem na maître nekk ci kanam ba léegi Omar Ba aussi yor ko moom Omar Ba aussi yor ko moom maître nekk ci kanam ba léegi ndeysaan ah laay laay laay. tereef dal na tereef na ci kanam bitiwu njàmbur léegi nag. léegi nag diggante maître la ak capitaine Dina Ndiaye. maître capitaine Dina maître capitaine Dina. premier numéro 3 maître. deuxième capitaine deuxième capitaine Dina Ndiaye numéro 6. troisième numéro 10 Bisu numéro 5 nekk nga mooy eh, Mami Ngone Mami ma nekk numéro 5. noonu la course bi tëddee mu nekk course boo xam si ne course bu rëy bi neex na neex na lool barkala trois ans yi ñoo ko doon daw ñu doon daw ci 1650 mètres Mara sama doomu nday da maa lay nuyu. waaw ma jëm ji ngi lay fay. tey looy wax ci euh, metre mi nga xamante ni dafa ñëw ci plus de trois ans yi raw ci raw bu rafet te bi ñuy doog ko bi saison bi mu ñëwoon def loolu tey mu ñëw firndeel li nga xamante ni moom la def tey lan nga ciy wax ci maître. waaw ma jëm di di sant yàlla bu baax ci victoire maître bi ndax euh, fas yi fas yoo xam ne ñoo ko juddulu yaakaar ko te wax dëgg yàlla sañu yaakaar mosu cee tas même biñ koy raw sax xam nañ ne am na lu tax ñuy raw fas wi donc bu ñu demee ba yàlla dafaat ñu dellu siwaat euh, ci rawante bi ba bokkaat ci rawante bi ba tegale ñaari premier mënuma daf dara lu dul di leen félicité en l'occurrence samit paa yi nga xam ne moom dem da cee sonn trop ndox bu dégg bu tëgg nelaw foo ko fekk mi ngi lijjanti waxu maître añu reeru di foo ko fekk mi ngi waxu maître rek donc di félicité écurie bi ak ñëpp nekk di félicité tamit partenaires concurrents yi ñu àndal ndax ñun ñëpp foo la rawante la rek ku ne mën naa raw sa morom donc euh, bu maître rawee tam ñi ngi félicité maître ak entourage am mais tam ñi ngi félicité ñëpp ñi ñu àndal ci rawante bi di ci kontaan bu baax a baax yàlla na victoire yi sax nag te ñëpp tamit bokk ci premier yi ndax loolooy doxal course jërëjëf daal jërëjëf wax la maa maa ngi lay fay per. lay wax ci maître bi nga xamante ni sa doomu ndey moo ko moom Omar Bao. waaw euh, di gërëm yàlla euh, gërëm Serigne Touba balaa maa tàmbalee wax euh, maître mi raw Omar moo ko moom muy sama xarit di sama doomu ndey tey ñu ànd ñëw ci course bi vraiment maa ngi koy félicité fas wi daw na course wu rëy ku ko xool ni mu dawee xam ni c'est un champion et c'est un di ko ñaanal ndam loolu mu am yàlla na ko jik te yàlla na sax barke borom Touba jaajëf. yi jug nañu drapeau bi daal na gars yi jug nañu Mara deux ans jug ñi ngi nekk si trois ans wala distance mille deux cent mètres rafet njort génn rafet njort moo génn joxe 2 mètres Elie mu ndaw moo ngoogu di yar nu Bébé Goul nekk deuxième position Bébé Goul moo nekk deuxième position Bébé Goul moo nekk deuxième position troisième position Bébé waxoon naa la ko léegi parce que dara jox tër la ndax xaj bu ñuul la sama xel daa dem ci Magnum ak Zalax nii lañ meloon ca dëgg-dëgg président Cheikh moom wax naa mooy jom laa ilaaha illallaah Bébé Goul nekk deuxième position Bébé Goul wala léegi ni la casse de tout bi bu ko yéegee ba jàll ko njort moo gën joxe lu mat ñaari pono rafet njortu njortu Refane Ndiott very good Refane Ndiott very good very good la nga dàq Refane Ndiott very good mi ngi dàq rafet njort laa ilaaha dem na oh rafet njort dem na. rafet oh maanaam rafet njort dem na. daal di dem lu tolloog 30 mètres. lu bëree bëri bëri dem lu ma 30 mètres ma jom. ay lalla rafet njort dem na nga xam ne mooy very good diggante tàllalum Touba mi wut si tal tournaaru Alpha Ndiaye foofu la lay diire waaye ki ñu toll nii ki nga xamante ni moo génn nag mooy rafet waaye président. deuxième very good ànd ñu jaari na la ñëw di lijjanti si deuxième rafet jot mu nekk ci kanam deuxième rafet rafet euh, deuxième very good gaa yaa ngi noonu bu ñëwee dañ tekki ñu ngi nii kàbbal wut sunu rafet njort very good rafet njort very good rafet njort very rafet njort very good premier rafet njort premier numéro quatrième numéro deux président Cheikh cinquième numéro cinq lan ngeen di préparé waa CRG bu cees waaw sant yàlla rek lii vraiment honneur bu ma neex la vraiment di ci sant le président Cheikh Tidiane ñaa di ko gërëm di ko sant di leen ñaanal daal membre ba ñoom ñëpp daal yàlla nañ fi yàgg ba liñ mébét ci course yëpp ñu am ko. di la wax ni nag la treize incha allah dinañ fi def course boo xam ne course bu mucc ay lay doon kooku moom dañ leen ñaan lan ñëpp teel a ñëw lan ñëpp teel a dëgg la VIP baax na trop mais ñii ñu war a kus. vérigu dama bëgg boo lëggee. xam nga dégg bu mu bàyyi booy mu dem. njaxat njot bu mu ko may dara. na xëy rek ànd ak moom tee. dëgg la waaw man moom la laa koy digal. dëgg la ah, man li may wax mooy vérigu. Hmm. Eh, eh, dafa yéex a génn. mais bu ëllëgee bu booy bi dàqee day dàq topp ko. mais bu ko mayee distance da raw. loolu rek lañ ci wax. ñun li ñu jaaxle ci bi mooy fas yi. ji ah, seen valeur quoi. fas yi nañu waaye course xaalis course moo avancé wul parce que fas booy xool bu ñuy daw ñu leen di fay ay deux cent cinquante cinq mille fas boo ci fay vingt millions duñ la ko jaay ba pare ñuy daw ci prix boobu pour lan loolu. jóg nañu gars yi jóg nañu. boobu daal na del teew moo génn. gars yi jóg nañu. amara ñu gën teew bébé xadi teew gën na ñu ngi waa daw di ga yaa ngi noonu romb nu xel wi rëy na dëggal dëggal tànk dëggal weyi fas yi dëggal weyi dëggal weyi dëggal ba ko ñu yegg ci kasta tuubi di da ngay dégg weyi mooy xeli naaru góor ñeewoon uh-huh. naa la léegi nag kan loo baayam heure bu musaa na ñëw ci course mm. dégg ndax bada daa rafetoon njort loolu bay bada daa rafetoon njort mu jox la loxo xam nit mm. amul lu ko ko bëgg mm. bëgg yëgoo koy fay Moussa Mbaye waaye fas yow nga xam gaa yi téye nañu gaa yi téye nañu Mara eh, Mara fi mu toll ngoobu nañu eh, téye nañu di jaabal ndànk ndànk xam nga téye bi 200 daa bëri. te suuf si daa bëri. suuf si ak joor la. waaye maa ngi jooy joxulul kenn. maa ngi jooy. maa bu jooy. xoolal papa ñu ngi ni mu def. dafa ngoobu na da koo ngoob fi ñu toll. ngoobu na da koo ngoobu. sukk nañ waaye ki nga xamante. bëgg na sukk léegi léegi mooy situation. ndeysaan sama xel daa dem ci as Michel bu France. papa ñu ngi. mais gars yi dugg nañ ci ginnaaw. ñaari dugg def nañu benn tànk ci ginnaaw. man la ñaari dugg lañ. def nañu benn tànk. kenn dem teet di boobu. dem teet bu dëgg la. waaye ñu gars yi def benn tànk ci ginnaaw. kenn jënd borom la mais am na kuy jënd. borom la am joxoon nga tax asiru la asiru la asiru maa rabla moo jugee barke Assirou bu Cheikh Tidiane Touré moo moo moo ñëw toog ci deuxième waaye papa ñu ngi ngoobu rek ba tey waaye nag oh. waaye Assirou moo nekk deuxième position Assirou nekk deuxième position wala ñaari ñaari xaat lañ ko def sëñ Bamba ko bind kooku sëñ Bamba moo dem lambar ma moo dem Mayombe moo alak ruugi ndax Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Bamba mooy bàyyi sëñ Modou Moussa sama xel nag dem na ci leena ak Babacar Fall mu sëñ Mbacké Babacar mu sëñ Fall ba léegi ki nga xamante lii mooy Bompère numéro 2 moo nekk si kanam. Bompère nekk si kanam. Bompère moo gën noonu womat moo gën a womat moo gën a di jiital fas yi. moo gën a womat fas yi moo womat fas yi ndeysaan. moo womat fas yi. dëgg la. Bompère moo womat fas yi. Bompère moo womat fas yi. moo gën a professeur Sakhir Thiam. dëgg la Bompère day fas. Bompère dem na dàq lañ Bompère. oh dàq lañ Bompère. Pape moom dàq lañ Bompère loo wax ci loolu. Pape Ngom Pape Ngom mënu lu dul félicité ñu waaye ca dëgg-dëgg moom père nee naa la bu ñu yeggee ci tournage Touba Mbacké wi dina yokk li muy def wala mu ñàkk li muy def ndax tey ca dëgg-dëgg. gars yi dañ leen ci kaw aussi gars yi dañ leen ci kaw ba père kar ñëw na neen kar ñëw na oh neen kar ñëw na daaw leen teel teew dawal nañu teel teew dawal kaw oh neen kar ñëw na Buraax moo ñëw Buraax ñëw na Buraax moo ñëw Buraax ñëw na ay eh, Buraax dem na Buraax dem na bébé xadi tàggat na eh. ajaratu Kole Fall moo koy fa ñëw na moo jaar caaral ba Kole jaar dirib Aja Kole moo jaar caaral ba moo ñu roog dama kebe dama kebe maamam ku musa jiiru ba 200 mètres bi ñàkk nga def na ko pendeeri def na ko Buraax def na ko lawlo cat waaye ca dëgg-dëgg nag ma job mbay peex ki nga xam ne moo génn mooy Buraax Aja Kole ñëw na gën Aja Kole ñëw na Aja Kole ñëw na Buraax gën Aja Kole Buraax Aja Kole Buraax Aja Kole Buraax Aja Kole ñoko ñoko hol wurtini ñoko le nelen kar ñoko ma wurtini ñoko le nelen premier numéro 9 pour premier numéro 9 nekk ki nga ni mooy Adja Kole Fall troisième nekk ki nga ni mooy nelen kar troisième nelen kar noonu la course bi mu nekk course bu ñu doon daw ci distance 2200 m. ah te bañ la. Ah, yirim ngoone yirim ngoone yirim ngoone ba jamaale anduma yeela dama la yam ngoone ba jamaale anduma yeen amul baawo si ñoor yàgg nga leen a raw amul baawo si ñoor yàgg yam ngoone yam ngoone bata yeenu dama la ay yam ngoone gaa jug nañu gaa jug nañu waaw waaw trente kolos la noonu gaa jug nañu oh, arif ñëw na jug nañu waaye papa ñu ngi tey ki nga xamante ni mooy ñàkk gore mu dem teet benn yoon papa ñu ngi dem teet fi ñu nii ca dëgg-dëgg ma jom mbay ñàkk gore ak façon nga xamante ni mooy la grande royale grande royale la grande royale la grande royale dem na dañoo ànd voyage grande royale dem na grande royale la la la grande royale dem na oh. ñàkk gore grande royale uh-huh. Uh-huh. keroog ba mu nekkee kër papa uh-huh. guddi grand salle mm-hmm. mm-hmm. am na deuxième grand prix grande royale Grand Royal gën na joxe. Grand lu bari. joxe na 20 mètres. Grand Royal dem na Mara noo xamee. joxe na 20 mètres. noo xamee mooy ñeenti la ngër. laay laay la Mara yaa aay. waaye Ari waaye Ari fa ci gars yi de. mi ngi troisième position. te gars yi. Ari fa ngi troisième position te gars yi. moo ko troisième waaye la Grand Royal rek kanam. ki nga xamante ni mooy mm. Assane Demba mm. daa ñëw ni ko yokkal li ngay def mm-hmm. Assane Demba ni ko yokkal li ngay def mm. ki nga xam ne mooy Mbar Ngoone nga xam ne Baye Ndiol tey entraîneur soride moom it ñëw leen yokk leen li def waaye Baraka moo ngi ñu téye ci biir groupe bi moom mi nga xamante ni ak Altaay ñu àndandoo di ram rek fi mu toll moo dem ndeysaan la grande royale dem na. grande royale. toile kàlla moo ko moo ko. moom ñàkk gore ñoo jëlee fas yi. grande waaye Aliou foo amal benn groupe. Aliou foo amal groupe bi ci ginnaaw. la ilaha illallah. grande royale day day njëkk rek. 70 mètres lañ joxe nag fi mu Mara ay gële. 70 mètres. non Mara yaa ay. voilà Mara. mbay li la. Mara ay nga. Mara bu jooy. ma gas na rek. njëkk rek. Ndiack Goré dem na Ndiack Goré yokk leen distance bi. Ndiack Goré yokk leen distance bi. Grand Royal Pape ñu ngi da koy jaabal fu mu toll nii. Arif ñëw na. Arif ñëw na. dalal nañ Arif dalal nañ. Arif ñëw na troisième position Assane Demba ñëw na. Mbaar Ngoné. ak Mbaar Ngoné dëgg la. dalal nañ ay taay. waaye dalal nañ ki nga mooy teel teew. dëgg la laay laay la la. waaye Ndiack Goré nekk ci kanam ba léegi. moo génn. man la 200 mètres day course. dëgg la. oh oh. gars yi daw diggante Alioune Diakhalé Siré Baraka Défenseur Baraka Baraka jaar na ci arrêt oh Baraka jaar na ci arrêt bi Baraka jaar na ci arrêt bi oh, oh, oh. lii rëy na Baraka dem na Baraka dem na Baraka dem na Baraka ñàkku de Baraka ñàkku de Arif Arif ñëw na Arif ñëw na troisième position Arif ñëw na Baraka Arif ñëw na Arif ñëw na oh Arif Baraka Arif Baraka Arif gars yi dafa ñu mel ndànk ñu ngi kàbbalu suñu bu ñu ñëwee day tekk Arif a a ngi ñëw Arif a ngi ñëw Arif a ngi a a ngi a ngi ñëw première première set 7 première numéro 7 nekk jàkkore deuxième nekk numéro 10 attention les 6 duñ ci wax duñ wax waaye première daal numéro set nekk gore la jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la ñu Père Madior leer la mu nekk ay kàddu yoo xam si lu leer la mbokk yi yéen yéen ñu tax a jóg lii moo taxoon ñu ñu ñu suñu liggéey yëpp ñëw taxaw ci lii pour wan leen li nga xamante ni moom ngeen bëggoon xam parce que ñu bari li tëju woon na seen bopp moo tax tey ñu leen ko seen naa fi leen tàggoo gis ngeen course moom laa leen jëloon fee ci hippodrome jomba ko du jóg foofu ci Thiès kay tey ji nag euh, li création moom solol torkal la nga xamante ni eh, sama xarit sama doomu ndey moom ma woo sañsel ma yu rafet yi nga xamante ni Libe création maga ma ko moom woon toor fakal mu génn àdduna mu jël ko ko duppeewaat ko ko toor fakal loolu mu nekk lu rafet Libe yaa ngi noonu daw suuf mbokk kon fii laa leen di gërëm bu baax a baax petit mi nga xamante ni moo nekkoon ci caméraman bi waaye di gërëm bu baax a baax alu mi nga xamante ni moo ko monté ba mu baax den jox dig daje ba beneen maa di ak seen mbokk seen xarit Mbay Pex jërë ngeen jëf mbokk Thank you.